yéen a ngi teewlu seen seen mi TV. bismillah dal ak uh, jàmm nday fatou ndiaye journaliste seen tv bi nday fatou ndiaye mu mel ne nag jamono yi daal dinay am nag lu ko naqari ci patron bi di Bougane Gueye Dany lan moo ko naqari moom Ndeye Fatou Ndiaye niki noonu seetlu nañu ne kii di Bougane Gueye heure bu Ousmane Sonko génnee wax midi midi cinq kii di Bougane Gueye génn def li nga xamante ne eh, moo di laay fam mu ki nga xamante ne moom moo di premier ministre Ousmane Sonko mu mel ne loolu ñu bari nag ñàkk fayda ak waaye lañ ko nag tuddee waaye ba tax kii di Ndeye Fatou dina ci yëkkati ay kàddu nag ma ngay critiquer seen patron bii di Bougane Gueye di mu nekkee nii daal neexu ko yëkkati ci ay kàddu yoo xam ne daal ah, da ngay ree ba sonn bu ngeen toppee bi la vidéo di ngeen ci dégg ah, ki nga xam ne moo di Ndeye Fatou Ndiaye dinañu leen ko dictal Ndeye Fatou Ndiaye yëkkati na ay kàddu nag daal daal di critiquer li nga xam ne nag moom moo di jëf bi nga xam ne moom la Bougane Gueye Dany nekkee jamono yi ci digganteem ak le premier ministre Ousmane Sonko bu Ousmane Sonko waxee kii di Bougane Gueye daal di retourné ak ah, feelu ko mu mel ne moom day Fatou Ndiaye la mu ca wax nag ñu baree bari fi mu toll nii. ña ngay wax ne nag kër dof yi euh, seen patron bi euh, jamono yi euh, li muy nekkee métti na leen lool moom Ndeye Fatou Ndiaye kon ñu dem ci kàddu yi nga xam ne daal dina koy yëkkati daal di koy wax ci Bougane Gueye ni muy toppee Ousmane Sonko ba tax bu waxee midi midi cinq rek moom mii di Bougane Gueye takk nag ay rajoom daal di génn daal di nag jox réponse ki nga xam ne moom moo di premier ministre Ousmane Sonko ñu dem ci kàddu yi nga xam ne moom Ndeye Fatou Ndiaye daal dina koy yëkkati nag daal di koy jagleel patron bi Bougane Gueye Dany ay c'est sa manière de s'opposer on le respecte on le lui concerne euh, juste euh, avec le temps euh, dina dem ba day je pense que aussi Ousmane Sonko pour un début ça peut passer mais avec le temps aussi jaru ko daal c'est euh, day day mel ni amul moom feuille boppam parce que en tant que leader aussi da ngay am sa feuille de bopp certes bu kii waxee nga bëgg a tegg mais si yow del ñëw ak sa waxi bopp des fois ñëw ak say initiative bopp di def say communication bopp yoo xamante ne du wéeru ci kii li mu wax rek lay tontu euh, automatiquement loolu aussi lu jara bàyyi xel la la mu wax nag jëmee ko ci population Touba ci leve de fonds bi loolu aussi euh, on le parce que aussi bu ñuy def levée de fonds defuluñ ko pour ay population yu nekk en détresse mais nag parti bu ne sañ nga nga dëgmal ay élection nga def se levée de fonds tamit loolu dañ koy nangu waa parce que euh, lu ci mën a am moom euh, say réplique yi muy def pour un début ça peut passer mais quand même avec le temps lu jara xoolaat la ndax bu yàggee sax Ousmane Sonko mën na xëy di def lay naan la la la la lee di xaar ndax Bougane da ciy toppaat naan ko lelele wala. ça dépend quoi donc avec le temps moom lu jar a bàyyi la ci la communication. très bien. WhatsApp nigga. doy na waar kon ñun ñoo ko nag daal di nag euh, déggandoo moom Ndeye Fatou Ndiaye lii la nag wax patron bii di euh, Bougane Gueye Dany mu mel ne kay euh, li nga xam ne moom la Bougane Gueye nekkee neexu leen ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee kër dof yi kon seen patron bii di Bougane Gueye li mu digte ni daal moom Ndeye Fatou Ndiaye kàddu yi nga xam ne daal dina koy ci yëkkati mingook di wax na rek li nga xam ne Bougane war na ko defaat ci communiqué am loolee la Ndeye Fatou Ndiaye daal di xamle que ni ko Bougane di defee daal baaxul euh, benn yoon moom mii nga xamante ne rek mooy euh, borom nag seen TV ba tax fi mu toll nii ñu bari nag euh, dañu koy reetaan rek jàppe ko li nga xam ne moom moo di comédien moom mi nga xam ne moom moo di Bougane waaye kii di Cheikh Bara Ndiaye borom def gis moom mii di Cheikh Bara Ndiaye daal dinañ nag yëkkati ay kàddu teg ko ci ndoddum ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany encore ci nag ni nga xam ne noonu lay nekkee di def nii mooy nag bu Ousmane Sonko waxee mu daal di retourné daal di wax daal di koy tontu ca na mu gën a gaawee moom Cheikh Bara Ndiaye yëkkati na ay kàddu daal di koy jagleel ki nga xam ne moom di Bougane ñu dem. démb Sonko wax na. waaw de fonds levée de fonds bi ñu ngi ciy woo ñëpp. mais samedi samedi ngi ci euh, Dakar Arena. Ziga meeting. waaw Ziga meeting waaw Bibis Gueye nag. man bu bu génnee. la Bibis. kuy Bibis Gueye. Bibis dama yaakaaroon ne Sonko boo koy kuy bibis bu fekkee dafa wax ngay wax sawaay <laughs> mooy kii waaw bibis booy bu fekkee daa wax sonko daa wax ngay wax mi ngi kañot kañotal woote na grand woote na <laughs> arena uh, hmm. wootel grand théâtre kay ah. ku mën na def waaye jëndi siifur rek jëndi jëndi vue rek toog ci télé bi ku wax ngay wax loolu yomb na bu neexoon fuuta tampi ku wax mu wax loolu dara loolu loolu loolu gàtt xam-xam la loolu gàtt xam la kon ñoo ko déggandoo kàddu yooyu moom la Cheikh Bara Ndiaye wax ki nga xamee ne euh, moom moo di Bougane Gueye euh, Dany mi kon jamono yi euh, moom Bougane Gueye Dany est-ce que nag jotul mu li nga xamee ne moom lay demee ndax kat ñu bari la ñu wax mooy du ci jëlee ndam benn yoon ndax bu fekkee ne rek da ngaa nekk li nga xamee ne moom moo di opposant nekk nag ci nag opposition bi parce que yéen jàkkaarloo ki nga xamee ne moom moo nekk ci pouvoir bi kooku war nga mun indi ay argument yoo xam di dina tax ba nit yi topp la comme discours bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko daan joxe ba tax ndaw ñi jox ko di ko mu mel eh, ne fu mu taalal rek ndaw ña dem uti ji foofu loolu kon lenyo ñu jàppoon ne Bougane gi eh, dana ko def jéem a nag indi procès boo xam ne dina incarné ba nag askan bi deglu ko mu daal di ànd ak ñoom. waaye moom Bougane Gueye danañ kon eh, taxawul position boobu li bëgg mooy premier ministre moom lay opposé wu moom jàkkaarloo la président Diomaye rëpp Ousmane Sonko lay wax ay waxam euh, commencement ba fee moom la Ousmane moom la Bougane Gueye Dany di wax ci déclaration yi nga xam ne ñu ngi koy dégg mu koy def ndax lii nag moom mii di Bougane dina ci amee euh, ndam am déet en tout cas ci local yi législatif yi ñu jëm moom norul yomb benn yoon ci ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk nag seen euh, coalition ci coalition boobu kii di Bougane Gueye ràññee nañ ne mosul dem ci li nga xamante ne mooy ay élection est-ce que nag moom mii di Bougane tey dina nekk député am déet ak lu munti am daal ñu bari ña ngay wax ne moom mi di bugaan ñu bëri euh, kenn nag daal di koy kenn kenn topp ko ba tax na daal euh, élection yi bu ci demee ña ngay jàpp de assemblée moom kii di buggaan ngay dani euh, dana ko wute ndax kat ñu bari nag gëmuñu ko ngir nag ni nga xamee ne noonu lay nekk di ko doxalee ci biir réew mi mu mel ne ay employé bi ñu ci bari rek xam nañ ki nga xamee ne moom moo di seen patron bugaan li nga xamee ne ñu ngi koy dund ak kon daal moom euh, Ndeye Fatou Ndiaye daal dina yëkkati kàddu xable na ne euh, Bougane Gueye li mu nekk nii daal daf ko nag war a arrêté indi nag yëfu boppam si kàddu yi nga xam ne Ndeye Fatou Ndiaye daal dina koy yëkkati mi ngoog jërë ngeen jëf.